mooy. ñu ngi jëm. ñu ngi jëm. ci gàmmu gi ci gàmmu gi. Euh, mooy euh, gàmmu gi nga xam ne. mooy gàmmu gi nga xam ne. suñu wéyjur. suñu wéyjur. suñu sëriñ. di suñu sëriñ. suñu wasila. di suñu wasila. Cheikh Mouhidine. Cheikh Mouhidine. daan na ko amal. daan na ko amal. at bu nekk. at bu nekk. yàlla dogal. yàlla dogal. ren. ren. ndax du ko fekkee ndax daal ko fekkee bu ma ko fekkee ma seen njaboot yaangoo seen seen sët yaangoo seen seen doom yaangoo seen euh, loolu la la dogal lu yàlla dogal dogal ci man gërëm naa ko gërëm la ko waxee rasulullah wala rasulullah wóoroon na ko loor bi leer na nañ digle na waari set wecc waari set wecc njàngaleem njàngaleem amul tilim amul lu ci tilim dafa mel ni dafa gëstu di ko xool. doo gëstu di ko xool. da ngay téen rek. da ngay téen rek. dajeeg moom dajeeg moom. yal na yàlla def loolu. kon gàmmu gi mu doon amal. kon gàmmu gi mu doon amal. at bu nekk. at bu nekk. incha allah incha allah. incha allah incha allah. suma incha allah. am nañ yéene. am nañ yéene. amal ko fii. amal ko fii. ci Madinatu Jilaani. incha allah. incha allah. mooy bés bu ñu ko doon def. bu nekk. at bu ne. mooy gàmmoom gi mu doon def. mooy gàmmoom bu nekk. at bu ne. xam ne bu tàntee. nga xam ne bu tàntee. ñëpp. ñëpp. xamaat dolleeku. ci yonente na. ndax néew na. kuy tànt. kuy minuit ba fajar ba fajar waruñu ko weesu waruñu ko weesu yàlla yàlla yonent bi góor yàlla yi ba bët set incha allah yéene boobu jaboot gi yëpp am nañ yéene daf ko fii ci Madinatul Jilaani dañ yàlla dimbalee bu weer bi taxawee danañ xam ban bés la bu boobaa danañ ko yëgle ci réew mi ci biti réew ci ñëpp ñu ko war a yëg incha allah gàmm dafa tombeek mbas muy covid bi wala di corona nga xam ne am na yu laaj am na yu mu digle am na yu tere docteur digle. ci mbooloo ko war a dajaloo. mooy distance sociale yi. mooy distance mooy masque yi. mooy ko. préparé bu ñu yàlla yóbbee ci bés bi. bu ñu yàlla yóbboo ci bés bi. di tàmbalee. di tàmbalee. ci route nationale bi. ci route nationale bi. Madinatu Jilaani. Madinatu Jilaani. képp ku fi taalibe. képp ku fi taalibe. wala di njaboot. wala di njaboot. wala di soppe. wala di soppe. wala di xarit. wala di xarit. ñu ngi lay ñaan. na nga takk sa masque. boo amul masque. boo amul masque. ñun ñii. ñun ñii. yore organisation. yore organisation. gàmmu gi. gàmmu gi. waajal nañ. waajal nañ. ay millions yu bëri. ay millions yu bëri. waxuma ci xaalis. waxul ci xaalis. xaalis. ay masque waaye ay masque. nga xam ne ku fi ñëw. nga xam ne ku fi ñëw. amoo masque. te amoo masque. nga takk masque. incha allah incha allah. ngir mbiratu jilaani. ci mboolem fànn. bu neexee yàlla. kenn du fi nekk. kenn du fi nekk. lu dul di nga takk masque. distance yi ñuy digle. kenn fii mooy kenn fii kenn fële kenn fële jaxasoo bi bañ a am jaxasoo bañ a am incha allah incha allah danañ ci góorgóorlu danañ ci góorgóorlu mooy mesure strict yi ñu joxe mooy mesure strict yi ñu joxe ñu war koo def ñu war koo def bu ñuy dajale mbooloo ci bu ñuy dajale mbooloo ci wàllu covid bi waajal na nit waajal na nit daayira boo xam ne daayira boo xam ne seen kilifa mi ngi fi muy Baradul Amir di ñaar téeméeru ay jeunes ñoo xam ne ay étudiants lañ góor ak ay jigéen yoo xam ne ñoom lañ sas lépp luy set lépp luy set lépp digle kër docteur yemuñu ci ñoom rek waaye dinañ ci ànd ak ay médecins yoo xam ne ay fajkat lañ dinañ ci ànd danañ ci ànd ak ay pharmacien yoo xam ne loolu mooy seen cër waaye ci yem danañ ci ak croix rouge euh, ci ay éléments yu ngir mbir mi mën a ñoom waaye duñ ci yem waaye duñ ci yem dinañ ci yëgle danañ ci yëgle mboolem ñi nga xam ne mboolem ñi nga xam ne dañoo yor wàllu wér gu yaram wàllu wér gu yaram ci réew mi ci réew mi ci gox bi ci gox bi ñii waa service d'hygiène ñii waa service d'hygiène ak ñi ni mel ak ñi ni mel ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo ñu ngi leen di tàllal loxo